dañu daan taxani dañu daan bay di jàngi dañu daan rooti dañu daan yolwaani bu njëkkoon na am yàlla woon jafe na robinet gas ngi nii tey taxa nekk root weesu na tey sépp dan daan taal ngir mën xool lamp yaa ngi leer te yàlla xewal bi sëriñ saalu sa jamono la xew cant gi sëriñ saalu sa jamono la xew asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum bitim réew asalaamaaleykum àdduna sépp maa ngi nuyu ñëpp di nuyu soppe yi xarit yeeg am di jàmm yi fépp fu soppe ne ci àdduna man Mohamed Niang mu sëriñ Saliou Cheikh Béthio maa ngi lay siyaare te di leen wax ngeen kar ko fii ci télé musique télé musique bii ñoo ko moom